dal leen ak jàmm mbokk internet yu partout tv ab tënk rek ca la gën a fés la ñuy daal di dellusiwaat niki tey mën nañ actualité bi nekk benn poñ ñu daal di see fa seenee dikkaat ci ak yaatal gannaaw nag arrestation moom mii di ngañ dem ba ture mën nañ ne nag la nga xam ne rek moo sa jot a bees gannaaw niki démb ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ay mbokkam ci wàllu liggéey bi nga xam ne rek ca la nekk ñu ay greffier foofalee nag ca tribunal daal di eh, gàntal maanaam lankin kaar rek ne amul kenn koo xam ne rek da nga am audace bu tool ne ngay diglu kii di maître Ngagne Demba Touré ci suñu kanam nekkat eh, salfañi àq ak yelleef ga nga xam ne rek daal di nañu koy jote nemmiku tax nag ñoom greffier yooye nekki bu ñu nekkat diglu googee du am ba kii di bi sax daal di jotoon sàkku rek eh, ci nekkat nañu ko daal di dàq ba niki tey wante ñoom it lañ jot a xamle mooy ne dañuy taxaw ba tey ndaxte kat kat diglu ko tey ak suba ak gannaaw suba ñoo si yam la ñuy bañ nak moom mooy ñu daal di koy jël rek defeere ko te mbir mi bu xasee ba am day mel ne rek topp na tànk yi ña nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon te ba jamono bi ñu toll nii seen i dossier kenn yëngalu ko ku ci mel ne kii di président Ousmane Sonko gis nañu ko Bassirou Diomaye Faye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne rek ci mbir yi ni mel lañ leen toppe woon ba jamono bi ñu toll nii France daal di xëddeen tax nag di pexe comme ay moroomam te loolee kat moom mooy salfaañi àq ak yelleefu suñu liggéey loolee kat tax jamono bi ñu toll nii mën nañu seen cellule daal ne tekk taxaw nekkat nangootuñu lenn loo xam ne rek luy circuler la luy dem ci jamono bi ñu toll nii nag mën nañ loolee tax nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégale yi ñoom it daal di taxaw ne kii di président tooñ na leen ba fa tooñam wante kat la ñuy sàkk moom mooy nikki tey na daal di wax lu leer ci yi nga xam ne gi